asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy faral di seetaan ci Leral TV ak yéen ñi ñu suivre ci Leral point net bu ngeen gisee tey ji décor bi ngeen xam ne Leral TV dafa génnaat ci région yi ngir wan leen li nga xam ne moo di euh, ruq yeeg rukaan yi ginnaaw ba ñu rombee Thiès dugg Diazap ñu ngi actuellement fii ci Lalane nekk ci communauté rural bu Fandène ñu ñëw fi ngir waxtaan a ñi nga xam ne moo di population bi ñeel seen wàllu liggéey ñeel aussi seen wàllu doxalin ci wàllu wu gën a rëy mooy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum artisanat ñu nekk suñu ginnaaw mooy suñu yaay yi nes tuut ñu wanele leen seen i liggéey Lalane ci communauté rurale bu Fandène la bokk d'abord Lalane ñun ci lii la ñuy yëngu gis nga panier artisanat panier yi ak salon yi ak banteron yi ak bi ak kooni gi ci lañuy yëngu yàgg nañu fi gaaraas bi mat na wat na fanweeri at boobu sax ëpp na ko sax sama kalaat bi boobu xale la woon suñu yaay yi ñoo fi nekkoon ba ñu nekk xale ñëw sëy nekk fi naam jànguñu waaye ñun lii lañuy liggéey moom la ñuy yoree suñu njaboot gaaraas bi di leen fayal école gis ngeen primaire baa ngi fi ak euh, lycée baa ngi fi Euh, xale yi ci la ñuy jàng léegi bu ñuy bu ñu demee ba war a dem kees amuñu benn moyen lu dul dañuy jël suñu oto fay leen ñu yóbbu xale yi di jàng di wàcc di ñëw. ci ànd ak beaucoup de courage ak li nga xam ne moo di détermination alors yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkonteel ci li nga xam ne moo di seen liggéey bi. waa liggéey bi moom euh, vraiment macha allah ci suñu côté bi ndax bañ ci nekkee ba léegi yàgg na. te ñu ngi ciy faj suñu soxla ak suñu soxlay doom di ci fayal suñuy doom yi école di ci faju di ci fay suñu mutuelle de santé waaye euh, loo gis lu ne war naa am euh, ñoo xamante ne ay autorité ñi nga xamante ne ci ñun ñun ci ñoom lañu bokk comme lu mel ni mairie Fandène bi ñun waa Laalaan jigéenu jigéenu Laalaan yi dañoo tàmm liggéey waaw di ko def chaque jour mooy suñu métier comme ni ñuy xëyee bureau enseignant yi ni ñuy xëyee di jàngale ak ñiy euh, képp kuy liggéey liggéeykat ni mu xëyee di fonk liggéeyam ñun noonu la ñu fonkee suñu bas te bañ ci nekkee ba léegi yàgg na ci mairie Fandène bi la ñu euh, bokk te boobu ba léegi mos suñoo jóg ñëw ñu ne ah suñu jigéen yi de gàcc ngaa laama mën nañoo liggéey te bëgg nañ ko faw ñu jàppale leen ñu ngi gis suñu bopp bu baax xanaa léegi rek feebal bi mu duggee ndax yenn saay tubaab yi dañuy ñëw fii mbala ñenn yi nga xam ne salu la ñu jógee di ñëw di ñu def commande ñu leen di jaay waaw ci loolu lañ liggéey muy salo yi ku ñëw commandé la salo ak ay ay pañe yi yenn saay sa dañuy am ay ay ay ay clients yoo xam ne bitim réew la ñuy jógee bu ñëwee sant ñu bagage yi ñu ñu leen di jaay def ko ay conteneur yóbbu mais am na foo xam ne bu ñu fa tollee soo amulee fond doo mën a def loolu ndax conteneur li koy chargé du lu tuuti te as li ñuy am ci la ñuy yëngatu bu te mosuñoo gis kuy ñëw fii ba ne ah jigéenu laalaan yi de fii laa nit di fekk garage bi mu ñëw mu ne kaay leen ngeen def benn groupement. waaw est-ce que tey a ngi gis organisation wala état bi ñëw jàppale mosul ñëw. Mhm. fii laalan gii moom. Mhm. mosuñoo mosuñoo gis kenn ku ñoo xam ne day ñëw fii mhm. di ñu defal di defal groupe mbaa mbaa di ñu di ñu lebal. kenn nit la woon mu nekkoon euh, Josephine Grem gref gref groupement boobu moo ñëwoon fii grâce ak moom ñoo tax li ñu am ñi tey ñu am ko mais bi ñu paree ak moom ñun ñooy débrouiller suñu bopp jog waaw ak yenn saa yi di def natt ay tontine yi nga xam ne boo tebbee nga mën a yokk tuuti mais fii moom kan mësul ñëw benn gouvernement buy ñëw fii ni ne kaay leen ma defal leen groupement jox leen ngeen liggéey amul. waaw lu lu mel ni laalaan gii nga xamante ne ak njóobeen femmes yi yëpp dañoo dépendre ci mairie Fandène bi xanaa kañ au moins buñ ñu jàppalewul ci ay financement te nag bëgg nañ ko de buñ ñu ci jàppalewul waaye mën na ñoo jàppale ci loo xamante ne par exemple ñu ñëw gis nga suñu mbaar yi ni ñu mel mbaar yi sax waruñu ko foto ndax ni mu mel. te ñun ñoo ñoo dëbb dëbb ba ñu defaral ko ba ñu defaral ko suñu bopp waaw bëggoon nañu nag gis ci seen loxo waaw ñu ngi woo Augustin Tine ministre des forces armées bi moom loolu la nekkoon mais léegi nekkatu ko waaw mu ngi ci état bi. ñun daal li ñuy ñaan dinaa la ko waxaat chaque jour ñu ñaan chaque jour ñu ngi fi ku ñëw fii duñ ko duñ leen ñàkkee kersa dañuy taxaw rek wax mais duñu gis benn résultat waaye ah yaakaar naa rek comme yéen ñëw ngeen. dinañu wax bu ñu amoon ku ñuy dimbali as tuut xam nga ni fii gis nga fii mbaar yi bu ñu amoon ku ñuy dimbale ñu tabax ko nii def ko ay cantine dina baax suñu amoon itam kuy ñëw ni leen ah kaay leen yéen ñaata jigéen ngeen ñaata ngeen soxla ma defal leen temps ngeen liggéey kon suñu liggéey dina gën a yokk waaw ndax gis nga fii yëpp ay bantaroon gis nga bantaroon yi moom la ñuy daaji ay néeg dañ ko daan kii mais boo amulee fond doo mën a renforcer lu bëree bëri te fi ñu nekk ni benn gouvernement mosu ñoo jàppale ne kaay leen liggéey ñun ak suñu jom xam nga jigéenu katolik waaw dañoo yàgg di yëngatu am suñuy mouvement mouvement yooyu ci la ñuy ci la ñuy jàppandi as tuut tuut tuut di ci di ci di ci liggéey di ci góorgóorlu mën a jàppale suñu doom yi ñuy jàng. alors tey jii ban message ngay lancer ñi nga xam ne moo di autorité yi de manière générale. waaw autorité yi nag maa ngi leen di lancer message di leen ñaan. même bu ñu ñëwul def ñu ay financement defal ñu ay financement ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ñu jàpp ci bu baax mooy ay mbaar yu baax rek sax buñ ko amoon baax na yow boo amee sa mbaar bu baax day attirer client yi ñu tabal la kol comme mbaar yi nekk ci yoonu Dakar bi booy dem côté euh, Ndukura ci yoon bi am na ay mbaar yoo xamante ne nit ñee ko tabax pour jàppale ko jigéen ñi ñun buñ ko amoon mu baax day attirer clients yi dañuy defar suñu bagage rek mu rafet mais xoolal mbaar yi kuy koo xamante ne lépp yow yaa ko war a def xam nga war a génn war a euh, fayal xale yi école war a faj say soxla ak jamono bi nu mu mel xam nga mënoo fee nekk di di financer mbaar yoo xamante ne il faut daal ñu jàppale ñu loolu lañ leen di ñaam seenub ñàmbarte nekkul lu ñuy euh, natable. Euh, biñ fi ñëwee Fandène fekk nañ fi ay jigéen yu jàmbaar ay jigéen ñi nga xam ne tey jii dañuy ñàkk ngir daan seen doole ngir euh, dimbali seen i doom ci njàng meeg yu ni mel jot nañ waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu mu di artisanat ñoom nag li ñuy ñaan dégg ngeen ko ci seen biir kaddu mooy nguur gi dimbali leen euh, ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu mu di artisanat bi